ne fas gi nag li ñu saafara mooy awrawu lax awrawu nay képp koo xam boo tekkee ndig maanaam bu doon mu def nga ba mënatul dara sa or mhm. soo tekkee fas gii balaa man ñaari waxtu bu sooba yàlla di yëg sa bopp baax te fas gii bu dee mi sa ndig mhm. bu dee say dara dafa tàng fekk tekki woo ko mën ngaa bañ a àgg boo ko takkee jëru ngay naan dara jëru ngay sangoo dara jëru ngay takk dara lépp loo xam ne jafe-jafe néew kàttan ak loo ko mën di jox moom fas gi képp ñi ma yàgg wax ñett ñoo xam ne bokkuñu buñ ñëwee ne ma sëriñ bi lañ ñu waxoon fas bi gisuma ko ma bàyyi joxe fas gi la si ab daa sëriñ baara jërë ngeen jëf taxaw seetlu bi nu am eh, ci eh, premier ministre Ousmane Sonko eh, nekk di démb rek la amal li nga xam moo di akub déclaration boo xam si nekk patriote yi yàgg nañ ko xaar ndax namm nañ ko torop ci sortie nga xam si nag daan na def moom mi di premier ministre Ousmane Sonko depuis nag avant mu daan toog ci nguuram gi rek ci li nga xam di page Facebook am bi danaan ci def ay live yu bare bari danaa chaque mois xanaa dañ ci def deux mois fois live ba tax na rek moom mi di premier ministre Ousmane Sonko boobu ba léegi nag gëj naa def live trop nag démb rek la def live àddu nag ci li nga xam moo di actualité li nga xam moo di actualité Sénégal ginnaaw nag moom mii di Ousmane Sonko simmi mbubbum euh, premier ministre bi nga xam si nag sol na ko sol nag mbubbu politique bi nga xamante ne si ne nag politiciens yi instant bi opposition bi ñu ci bare bare rek ñong koy attaquer euh, ku ci mel rek Bougane Ousmane Sonko nak sanni ay xeex li nga opposition bi euh, di djublu nak ci élection législative yi xam seen euh, Pastef da siy demal bopam mu nekk nak c'est la première fois Pastef di demal Bopam rek ci li xam modi législative mom premier ministre di président parti Pastef bëgg nak ak majorité fa lay xam modi ci assemblée nationale pour rek bépp loi boo xam si nag nguur gi bëgg na ko voté rek ñu voté ko surtout nag lu nga xam si moo di cour de justice bi nga xam si ne pour ñu mën a atte ñi nga xam moo di ay ministre ak ki nga xam moo di président Macky Sall mi fi nekkoon ba tax na moom mi di premier ministre Ousmane Sonko woote le 19 pour rek ab sega meeting boo xam si ne dañ koy amal fa li nga xam moo di ca Dakar Arena ba pare nekk teg ci nag akob kañot boo xam si ne ni ko di démb lañ ko commencé avant vingt quatre heures syndicat yi amal nañ ci li nga xam moo di quinze millions te képp kuy dem fa la te siga meeting ba nga yóbbaale li nga xam moo di sa mille francs mooy képp kuy dagg ticket rek siga meeting ba mille francs ngay dagg mu nekk nag c'est la première fois ñu gis ab politicien bu woote ak meeting gars yi di ci dagg ticket te xam naa ne dafay fees dell foofu na li xam di sa Dakar Arena di leen jaajëfal bu baax a baax